أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi ba tey nu toll ci suratu nisa ñuy jël benn aaya muy aaya 122 benn aaya bii nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nu ciy jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy al imaanu saadiq wal amalu saalix wal amalu saxiixu saalix huma miftaahu aljanna wassababu duxuliha mbokk julit yi nun ñépp nanu ànd xam ne ngëm gu dëggu ngëm gu dëgg gu ànd ak jëf ju wér jëf joo xam ne dafa wér te baax ñaar yooyu day ñooy caabi aljanna ñaar yooyu day ñooy sabab li tax ab jaam di dugg aljanna ngëm gu dëggu gu ànd ak jëf ju wér ju baax loolu mooy caabi aljanna waaye yemu ci mooy sabab bi tax ab jaam di dugg aljanna kon sunu sunu borom subhanahu wa taala waxee ngëm gu dëggu ak jëf ju wér ju baax mooy tax nu dugg aljanna kon ubbil na nu bunt yi kon lu fi des mooy kenn ku nekk ci ñun yaa war a fexe nga xool li nga gëm ndax dëggu na wala dëgguwul ndeysaan maa ngi ziyaare doomu ndey bi toog dafa bokkoon ci ñi aji waaw siggil ma torop nag ndax boo boolee nit ak nit surtout dem jaamu ji yàlla mu ñu waat mu ne la ki nga ma boolee loon amul moroom nga dajeek ujaaj yi ñu ne diw amul moroom kon wax dëgg yàlla na ko yàlla nangul léegi-léegi mu ngi may wax ne ñun ndeke nekkuñ ci dara waaw ñun waa Sénégal nekkuñ ci dara loolu ñuy wax mbirum diini te li gën a garaaw nag mooy sénégalais yi waru nañu waru goo xam ne dañu yaakaar ne ñoom ñoo fi raw nga dégg ay tëgg ndeysaan ak sabar yi di yuux sa xel dem fële ndeysaan nga nga sa xol naqari amu fa de ay sabar ay tëgg ay mbooloo yu yuux guddi bëccëg ay tànt yooyu amul makkatal mukarrama foofu koo gis mu ngi waaxu dem kaaba ga jaamu ji yàlla koo gis mu ngi waaxu jëm jëmaay yonent bi alayhi salaam koo gis dafa mel ne nit ñi dañ leen ne daw leen dañuy séddale xaalis ku nekk mi ngi bëgg a dem nekk ci kanam ah ndeysaan non foofu heure boo yeewu da nga naan man te biddanti na heure boo mun a yeewu nag xalaatal heure bu la neex xam nga Sénégal bi kenn du fi yeewu 4 heures matin jëm jàkka naan dama biddanti boo ñëwee da ngay fekk ubbeegu njaaga ji wala fële nag heure boo yeewu da ngay xeeb sa bopp heure bu la neex da ngay xeeb sa bopp booy dem ci jàkka ji da nga naan la il du ma am place ndax da ngay gis vague gi nit vër vër vër vër vër ñoom julli ci waaw ñu nekkuñ ci dara te wallahi wala ngay xam ne nekkuñ ci dara nga jóge fii ne cëpp walla nga xam ne nekkuñ ci tus te nag li garaaw mooy su fekkoon ne sax dañoo xam ne nekkuñ ci dara ñu dem a deltu ginnaaw mais léegi lañ gën a raakaaju léegi lañ gën a bew léegi lañ gën a bëri font léegi la caaxaan yi gën a bëri ba pare ñu jël diine ji dugal ci ay caaxaan yoo xam ne am na benn benn julli boo xam dama ko dugal ci Facebook bi dama ko dugal rek sama portable sonné benn naar woo ma ne ma yow li nga dugal lan la ma ne ko julli la mu ne ma julli ma ne ko waaw mu ne ma lii ban façon julli la ci àdduna ma ko ah xanaa gisoo ñi li ñu def waa ji dafa wax ci téléphone bi bay jooy mu ne ma ñii fu ñu nekk ci àdduna bi ma ko Sénégal ji ba diine is maa du islam ma ne ko islam la kay waa ji dinaa fi la koor di rab di rab aaya yi di ko rab ñi lay def loxo yi ak kaala gi di rab di rab aaya yi billahi wallahi taala yaram day daw i ñun sax bu fekkoon ne xam nañu ndeysaan dañu réer sax wala ñu jéem a tuub mais xoolal noonu en tout cas li nekk fii daal kenn mënu ko wax feebar daal jéem a loolu la ñu doon wax aleykumu anfusakum laa yadurrukum man dalla izahtadaytum aleykumu anfusakum góorgóorlu leen seen bopp ku réer du leen lor ñun li ñu pro li ñuy suñ problème mooy xumb xumb xumb xumb waaye sax waaye ba ñu fa demee lekk yi du jeex nag yi xar yi bo ay mbalka boisson yooyu mooy yooyu yooyu la ñuy digaru ak ay jaaraan yoo xam ne kenn xamul ni yàlla fekk loolu du dara ci diine yàlla bi tabaraka wa taala mbokk yi diine mooy ngëm gu wér al imaanu saxiix al imaanu saadiq as saxiix as saalix ngëm gu dëggu dëggu ba pare wér ànd ak jëf ju wér ju baax li mooy tax doomu aadama dugg aljanna waaye ngëm ngëm ngëm ngëm foy fu jox yi ngëm yoo xam ne kenn xamul lan la ngëm goo xam ne waa ji ki gëm gëmul yàlla gëmul islaam gëmul yonent bi ngeen defe ne ngëm googu wér na lan mooy imaan comme dañu ne jàng imaan ñu ne mooy ngëm borom xam-xam yi bu ñuy firil imaan lu ñu wax tasdiq bi kulli ma jaa ar rasul sallallahu alayhi wa sallam min indillah da ngay dëggal lépp lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi jële ko ci yàlla loolu mooy al iman as sadiq bi kulli ma jaa bi nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam min indillah lépp lu yonent bi indi da nga koy dëggal loolu mooy iman globalement al iman yazdaadu wa yanqus day yokk day wàññeeku al iman ma waqarahu maa waqara fi lqalbi wa saddaqahu amal ngëm mooy lu sax ci xol jëf yi dëggal ko waaye imagine ngëm boo xam ne waa ji ngay soññ waaw yow yow lu tax doo julli ne la xol rek a takku waaw xol rek a takku mu ne gëm na lu tax doo def nangam lu tax diine ji doo ci taxawee nangam nga gis muy muy muy dengi dengi di wax yu kenn xamul ngëm gu dëggu mbokk yi ajo al imaanu sadiq bu ànd ak al amalu saxiix ànd ak jëf ju wér ngëm bu dëggoo te jëf wérul ngëm boobu wérul jëf bu wéroo te ngëm dëggul jëf jooju du dem kon al imaanu saadiq wal amalu as saxiix as saalix encore jëf ji na wér ba pare dëggu baax ci yàlla tabaraka wa taala su boobaa am nga caabi aljanna ci sa loxo su boobaa ngëm googu ak jëf jooju dina nekk sabab luy tax nga dugg aljanna da nekk sabab li annahu bil imaani wal amal as saalih taski nafs mbokk yi est xam ngeen ne nit du mën a baax bakkanam du mën a set lu dul ngëmam gi wér jëfam nangu jëfam baax lan moo tax sénégalais yi mënuñu seen bakkan yi mënut a baax mënuñu am tazkiyatu nafs ci ay alquran yàlla di giñ naan qad aflaha man zakkaaha wallahi ku satal sa bakkan texe nga wa qad xaaba man dassaaha ku tilimal sa bakkan perte nga la moo tax mënuñu am tazkiyatu nafs c'est parce que ngëm gi moo dëgguwul ki am ngëm gu dëggu lu mu lëndëm lëndëm lëndëm dana yeewu fajar dem jàkk ki am ngëm gu dëggu lu mu métti métti métti métti métti bu ko yàlla waxee mu def defal bu ko yàlla teree mu bàyyi xanaa mu tarxiis daal di glissé te su paree tam dina tuub ndax ngëm ci la bakkan di wéree képp koo gis jëfam ci yàlla tabaraka wa taala daal di wér daal di baax boo contrôlé da ngay fekk ngëmam baax na jàng leen histoire ñu baax ñi ngeen fii wax yëpp ñu leen di tàggat da ngeen di fekk seen ngëm dafa ne keng bañ leen testé ci yàlla tabaraka wa taala ngëm gi kenn mënu leen delloo ginnaaw booleeg yonent yi ak nit ñu baax ñi ba fii nu toog kon ab julit na fexe ngëmam dëggu ab julit na fexe jëmam jëfam wér baax su boobaa am na téeméeri sens pour dugg aljanna aljanna ku ngëmam wérul du fa dugg aljanna ku jëful du fa dugg alxuraan bi ngeen jàng yëpp yàlla di wax aaye gaa yi bu ñuy dugg dugg aljanna lan lay wax gëm yàlla jëf-jëf ju baax waaye yàlla day wax sax sabab li tax ñu jug sabab inna almuttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma kulu wasarabu hanian bima kuntum taamaluun bi baa ngoog yéen yéen a ko doon def beneen aaya bi ne kulu wasarabu hanian bima kuntum taamaluun lekk leen naan leen ndax yii lii na ko doon def kon jëf ci foog mu am ngëm goo xam ne borom day tëdd nelaw boo ko waxee ñu mun a xoolal rek a takk xool rek a takk waaw xool rek a takk ah nit dana julli ba dee dem safara kon julliwul julliwul de julliwul su jullee julli gi yàlla wax du dem safara waaye bu ko defee comme nun nit ñuy def taf taf nañ ko dóor mu daan waaye imaam tey moom suñu tànk yi koor gi dafa xaw a metti da nga yolomal dégg nga bu imaam pare gaa yi ne ah imaam imaam waxoon nañ la ko de te gaa yi nañ benn jàkk boo xam ne imaam bi day jàng ràkk yu gudd yu bëri bëri gaa yi ne ko imaam yow da nga ñuy bëgg indi problème ki ne dañuy folli imaam bi comme imaam bi bëggul follee ko mu ne amul problème léegi dinaa gàttal imaam bi daal di ñëw julli daal di jàng faatiha daal ne mudahammatan allahu akbar ñu pare rek kenn jóg tax ne ko imaam gis nga li ñu doon wax ak ni yaa ngi nii di guddal imaam ne ah mu ne ko ñaari kalima nga jàng mudahammatan ñu ne la bu guddal ngay jàng ñaar maanaam loolu de mooy nit ñi lu baax lu ñu lay tere lu ne du question ne bul ko def waaye dañu bëgg nga bàyyi ko man gis naa jàkka joo xam ne amin moo tax ñu daal fa fi sole wala dolli ñu ne amin ñu pare rek goon daal di génn ana ñu wax amin tëw tëw fi sole bi tàkk kon lu ñu programme woon la xam nga kii dem jàkk yóbbaale fi sole da ko programme wala c'est ça mooy nit ñi luñ la wax bàyyil lu ñu lay tere ci diine yàlla bi dafa fekk du question ne bul ko fi def mais dañ bëgg nga bàyyi ko suñ la bàyyiloo benn sunna dañ la bàyyiloo ñaar dañ la bàyyiloo ñett dañ la bàyyiloo ñeent ci farata lañ jëm loolu diine yàlla jarul négocier. waaw moom la waaw waaw. waaw. waaw. maam wax wala wala mu ne amin. dana ko mu sën sën ma. daal tourné ana ko amin de. maam loolu rek maa ngi ko ko wax ci. Allahu akbar. donc ah ah kon ñu donc da nga julli waaw ba nga wax ko. ba nga waxaat ko fi. Allahu akbar wala rek ana ko amin maa ngi nii mu ne ko ba nga waxaat ko fi. gis nga amin luñ ci tere mais mooy li ñu wax léegi rek kon. il faut que ñu xam ne ngëm day dëggu ngëm gu dëgguwul du dem borom dem fenn ngëm bu dëggoo jëf wér sell saalih yàlla nangul la ko dafa am surutu qubulul amal ay charte yu yàlla di nangoo jëf charte yooyu boo ko bàyyee yàlla du nangu sa jëf surut qubulul amal jëf jaa ngi ni def nga ko yàlla balam koy nangu mu teg ko ci charte yi su sart yi matalee rek yàlla nangu jëf gi bu sart yi matul yàlla delloo la jëf ji kon ngëm gu dëggu mbokk yi ak jëf ju baax mooy tax bakkan sell waaye mooy tax bakkan laab wa tatxiiruha mooy tax bakkan laab laab bakkan set loolu yàlla naan qad aflaha man zakkaha gis nga moo tax jëf yi mooy koor mooy aj mooy saraxe mooy jàng alquran jëf yooyu ngay jëf mooy def sa bakkan laa di laab daa di set wicc ci ay bakkaar wa iza zakkat wa taharat ahlat li duxulil janna su bakkan laabee set yell na mbir yëpp daje na pour borom bakkan bu set bu sell bi dugg aljanna is hiya daarul abraar ndax aljanna mooy këru nit ñu baax ñi wa daarul muttaqin mooy këru ñu ragal yàlla yi kon loolu mooy benn ñaareel mooy sidqu waadullahi taala wa sidqu qawluhu azza wa jal ay yàlla ay waxam dafa dëgg mbokk yi bureau boo dugg di nga fa fekk poubelle mbalit bu dee président bu dee premier ministre ku mu mun a doon su waxee ba ci yàgg ndeysaan mu daan ne juum naa de daal di xotti feuille bi lem du boxoñ ñu dugal ko ci poubelle mbalit bi wala ah waaw ba mu des waxi yàlla yàlla moom ay waxam passé na jeex na ay waxam dëggu na amatul luñ ci rectifié jalla jalaaluhu sunu borom ay waxam dafa dëggu moom yàlla li mu wax wax na ko ba pare laa tabdila li kalimatillah baati yàlla yi kenn dootu ko changé gis ngeen hadisu ibnu abbas ba yenente bi di wax dafa ne rufi atil qalam wa jaffati suhuf yàlla yëkkati na xalima gi dootuñu bindaat wa jaffati suhuf kayit gi fendi na jeex na yàlla li mu doon wax wax na ko ba pare ku jaamu yàlla sellal dugg aljanna ku def leneen lu la yàlla santul boo deewee nga jëflante kook sunu borom subhanahu wa taala kon sidqu waadullah yàlla li mu digee dafa dëggu yàlla du nuróowul ak nun ñoo xam ne dafa ñuy dig ba pare ñu def ëllëg yowmal xiyaam ñu ne leen saa yi nga dégg ko fi daal du la kenn waaw da ngeen a bëri wax ñii ñu soxor lañ leen saa yi gars yi ñii dañuy soxor déedéet soxorun de man li yàlla wax la nii nettali jaam yi léeg-léeg ay nit dañ may woo téléphone oustaz waaw del wax ci aljana nag del wax ci aljana dégg nga wax safara dafa bëri torop wala li ngay kii wala li ngay yow sa sa kàddu bi dafa tàng xaw a kii tuuti man man du sama wax di man du sama wax di maa ngi ñëpp ci bokk yem ku ci jàdd yàlla làpp la ñun ñëpp ci bokk yem ñun ñuy wax ak yéen ñuy déglu ñun ñëpp ñoo yem ci am kanamu yàlla te ku nekk di nga gis sa bopp ci wax ji yenn saa yi ma wax wax ci man mi lay delluwaat ñëpp ay doomu aadama la te kullim ni ma aadama xataa wa xayrul xataain tawaabuun ibnu abbas ibnu ibnu masud da doon wax gaa yi law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta almawt cey bu ngeen xamoon samay bàkkaar di ngeen ma sànni ay xeer ba ma dee wala ibnu masud doon wax doomu aadama yëpp am bàkkaar ki gën a baax ci def ko ci bàkkaar yi mooy koo xam ne bu defee bàkkaar ba pare day tuub da ngeen yaakaar ne am na ku dul def bàkkaar wax leen ma kan la fii may wax ak yéen leel ku ngeen xalaat rek kooku la am nga koy xalaat am nga koy xalaat kooku dafa fees del ñëpp am bàkkaar yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ki gën a baax ci ñooñu nag mooy kii tuub ay bàkkaaram kon yàlla lim ñu dig dëgg la yàlla daf ñu dig aljanna yàlla du nax jamais yàlla daf ñu ne maa leen dig sàngam te li ma leen dig képp ku ko respecté li ma leen wax ku ko respecté li ma la dig boo dee ma daal la koy jox bañ na ko ba dana aljanna kër guñ leen dig la waaw ndeysaan ndeysaan aljanna ngi ne di gis ñu ne ah mu ne loolu laa leen dencal mu ngi ne moom laa leen dig su ngeen jaamoo yàlla rek bu ngeen ñeema dugal leen kon loolu ñaar la dañ ko ciy jëlee beneen bi mooy wa sidqu qawluhu waxam tamit dafa dëggu yàlla lim ñu dig dafa dëggu waaye waxam dafa dëggu jalla jalaaluhu ñetteel mooy wujub sidqul waadi min al abdi nañ fexe jaam yi nañu dëggu ñoom it lu ñuy dige li ann xalful waad min an nifaq ndax foose li nga dige naa féq la dinaa def te defoo dinaa ñëw te ñëwoo dinaa wax te waxoo dinaa def te defoo naa fekk moo koy def kon ab julit na fexe li mu digee mu respecté ko isa waada axlafa wa isa tumina wa isa xaasama wa isa waada axlafa loolu naa fekk moo koy def yonent bi dafa ne mandarga naa fekk ñett la riwaaya beneen bi mu daat ci yokk ñaar muy juróom nit ñi yaakaaroon na ne naaféq mooy koo xam ne dafay am benn béjjën ci jëb bi ñëpp xàmmee ko wala wala ñu yaakaar ne naaféq benn bëñ lay am bu ngand ci ci biir gémmiñ bëñ bi nga xam ne day génn ba ci sikkim bi kon buñ ko gisee ñu ne naaféq ngi nii yonent bi ne déedéet naaféq daal juróomi xàmmekaay lañ koy xàmmee bi ci njëkk mooy bu waxee du ko def bu diggee du ko def jamais ñaareel su waxtaanee day fen lu mu wax day fen naa fekk wala léegi rajo yi wala télé yi da ngay gis ñu invité benn borom xam-xam ban moom dañu ne waa mayel nag mayel ban maye ngay maye mooy fenal di gën a dee nga naan waaw amoon na fi benn paa la woon benn maire la woon te xam nga ne da ngay fen daal li ngay wax xam nga ne amul danga ko dégg te yonent bi nee na bokk na ci ngay wax di fen naafiq nga isa xadasa kasab beneen bi mu ne wa isa tumina xaana buñ ko dénkee mu war soo ko dénkee dénk ko alal boo ñaatee da ko fekk lépp lay lekk yonent bi nee na ku mel noonu naafiq la isa xaasama fajara soo xulóowee ak moom mu ëppal wax la lu nekkul ci yow ñaata yoon ngay dégg fii ku la ne dëmm bi ku la ne nàngam ku la ne nàngam ku la ne nàngam fekk xam na ndey fen mais daa bëgg rek comme mbooloo mi ñëw nañ daa bëgg ñu tàcc ko ah dafa bëgg affaire yi xumb moo tax mu dugg ci lim digg kon doomu ndey mbokk julli si aaya bi ñuy jàng tey loolu bokk na ci lim ñuy jàngal ñeenteel bi mooy wujubu sidqu qawlu wal xadis li anna al kasb min an nifaq ay dañuy soñ suñuy wax nañu dëgg suñuy waxtaan nañu wax dëgg ndax fen ci naafiq la bokk yàlla nee na wa iza xadasa kasaba kon ñeenti mbir yi moom la ñu benn aaya alquran bi di jàngal tey moom bi ne suñu borom subhanahu wa taala di wax ci suratu nisa aaya 122 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً sunu borom nee na wallazina gaañ nga xam ne ndeysaan góor gi ñu doon jàngal tafsir daf ñu doon wax wallazina joo gis amanu tegu ci seeni borom texe nañu wallazina boo gis kafaru tegu ci seeni borom alku nañu yàlla nee na wallazina gaañ nga xam ne ismu mawsul amanu dañoo gëm yàlla ci xeetu ngëm yi kam xawaayidul iman ngëm yàlla ñaata la juróom benn la boo ci bàyyee benn gëmoo wallazina gaañ nga xam ne amanu dañoo gëm mooy juróom benn yépp duñ bàyyi benn gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm alaaxira gëm dogal bi neex bi naqari yi juróom benn boo ko boolee mooy am nga ngëm soo ci bàyyee benn gëmoo yàlla nee na ñi gëm yemuñ ci wa amilu saalihaati ñu taxaw ci jëf-jëf yu baax yi farata yeeg naafila yi al amalu saalih al iman wal amal jëf ak ngëm ak jëf ñooy ànd mboolem aaya alquran yi saa yoo gisee amanu da nga ciy gis wa amilu saalih da nga ciy gis jëf waaye ban jëf as-saalihaat jëf ju baax jëf ju baax nag ñëpp xam nañ ko jëf ju baax kenn du jëf-jëf ju baax nit ñi ñëw ne lii de baaxul lépp luy jëf ju baax soo ko defee buñ ne dañ naan est-ce que alhamdulilahi rabbil alamin man koy jeex na ba pare tënkuñu ko fenn loo xam lu baax la rek jëfal bëril ko fexeel loolu bëri même booy am bàkkaar it fexeel jëf ju baax ji na ëpp jëf ju baax ji na ëpp loolu lañ wax fexeel say jëf yu baax nañu ëpp say jëf yu bon idfa billati yi ahsan del puus del fay lu baax man jaa bil xasanati fa lahu asru amsaaliha ku indi benn bu baax yàlla nee na ma fay la fukk kon nan fexe jëf yu baax yi bari mënunoo mënunoo muus mënunoo waane ba duñ am bakkaar waaye dañu ne na néew jàll man laa yaxta ku dul tarxiis amul walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya walam najid lahu ah yàlla nee na aadama mooy seen baay te moom laa njëkk a waxal mu tarxiis kon nag fu sunu baay tarxiise waxuma la ak ñun sët yi wala li ñu bëgg nag mooy boo tarxiisee nga delluwaat rek aadama ba mu tarxiisee lu mu def fa talaqa aadama min rabbi kalimaat fa taaba alayhi innahu wa tawaabu rahim boo tarxiisee gaawal nga delluwaat gaawal nga delluwaat ci sa boroom waaw mu ngoog sunu borom nee na wallazina amanu gaa ñi gëm wa amilu ñu jëf asaalihaati jëf yu baax yi ñii sa nudxiluhum dinaa leen dugal jannaatin ay aljanna tajiri yuy daw min taxtihaa ci suufam al anhaaru ay dex su ma leen fa dugalee ñu ne ah mu ne xaalidiina fiiha abadan dañ fay sax éternellement dootuñu génnaat kan moo wax li ku wax wax ji yàlla ñan la wax dina leen dugal aljanna ñan ñi gëm yàlla jëf-jëf ju baax mu ne sa nudxiluhum dinaa leen dugal allahu akbar kon war nañu am confiance war nañu am kóolute war nañu am ngëm am yaqiin borom bii wax nu lii ne bu ngeen defee lii ma def lii lu fi desati sa nudxiluhum la wax danaa leen dugal fan ci aljanna kër goo xam ne jardin boo xam ne tajiri day daw min taxtiha ci suufam al anhaar ay dex xanaa li ñuy neex neex neex ay kër di ko rafet ah gisaguñ fi kër yoo xam ne nag day daw ci kaw ndox nag wala wala am ngeen ko ci àdduna bi ay kër yoo xam ne day daw ci kaw ndox day daw nii di dem tajiri di daw wala day ay bato rek la xanaa kon kay bu ngeen gisee bato yu ngan di yenn saa yi ah nit ñi di ci nekk ay semaine ay weer mu nekk lépp lépp am ci léeg-léeg nga dégg ñu ne am na bato yoo xam ne am na stade am na bato yoo xam ne am na marché am na bato yoo xam ne ay avion dañ ci wàcc kon yàlla bu leen ne dinaa leen dugal ci ay aljanna yoo xam ne tajiri min taati al anaar war nañ koo gëm wala waaw ndeysaan waaye doomu aadama yi toll nañ ci alkande tubaab bi lu mu wax lañ gëm yàlla moom ah est-ce que wóor na est-ce que wóor na est-ce que ah est-ce que yàlla du nax yooyu da lañ fi nekk kon nag musiba la soo gëmee waxu nit weddi waxu yàlla te nit kii nga gëm yàlla moo ko may moye kat kattan ak xam-xam ak am-am ba mu defar li nga gis. wala ñu defar bato yi wala defar avion yi wala defar lenn wala defar yenn palais yi ba mu nuroog aljanna kan moo leen maye may moye yooyu. daa ngeen ci alxuraan yàlla di wax dëkk bi nga xam ne dañ koo defaroon toppandoo aljanna. dara desul buur bi bi muy toxu yàlla réeral dëkk bi ci suratul fajr ah irama zatil imad allati lam yuxlaq misluha fil bilad buur bi déggoon aljanna ci alquran yàlla di ko wax ni mu mel mu ne da koy defar yàlla bàyyi ko ba mu defar ko ba pare dara taxul mu war a toxu yàlla réeral dëkk bi xamatul ban dëkk bi fu mu nekk ci àdduna bi wala yéen borom xam-xam dañ naan ba léegi dëkk boobu mu ngi existé yàlla nga ko bàyyi ci suuf si muy tourné kenn xamul fu mu nekk allati lam yuxlaq misluha fil bilad dëkk boo xam ne kenn mësu koo defar ci àdduna su yàlla waxee loolu kay kon war ngeen ko gëm kenn mësu ko defar waaye yàlla bàyyi ko ba muy toxu yàlla réeral dëkk bi kon yàlla lim ñu digg mbokk yi mooy dëkk mooy lan sa nudxiluhum dinaa leen dugal jannatin ay jardin tajri yoo xam ne day daw min taxtiha ci suufam al anhaar ay dex mbokk yi aljanna bu ñu fa doon dugg benn 24 heures rek doy na ah waaye yàlla nee na xaalidina fiha abad bu ñu fay dugg yàlla daf ñu fay saxal dootuñu génnaat aljanna ki fa gën a tuuti kër këram moo ëpp àdduna te moo fa gën a tuuti kër ndax moom moom mu gën a tuuti kër mooy mujjee dugg bi malaaka jàppee ci loxoom di ko yóbbu jékki-jékki mu gis kër gu toll ne àdduna mu ne waaw lii nag malaaka mi ne ko lii de sa kër la mu jommi daal di sujjóot ne ko lan la mu ne lii yàlla ne ko may naa la beneen bu toll noonu muy ñaar allahu akbar koo fa gën a tuuti kër kon ki fa ki fa gën a rëy kër këram lan la toll ki fa gën a rëy kër kon këram nu mu toll te bu yàlla waxee bu nu yàlla waxee ne aljanna ki fa gën a tuuti kër këram a ngi toll ne àdduna war nañ ko gëm étoiles yi te xam ngeen ne moo ëpp suuf si wala étoiles yi nekk asamaan te xam ngeen ne moo ëpp suuf si wala ah wala d'accordu leen léegi nañ bàyyi nañ bàyyi kay alxuraan sax nañ ñëw ci science étoiles yi ñoo ëpp suuf si wala ñaat ah 36 milliards fois la ko ëppee léegi étoiles yooyu nga xam ne ñoo ëpp suuf si 36 milliards de fois ñaata étoile la 36 milliards de fois loolu kan moo ko mun jeexal kan moo mën a jeexal loolu kon kay bu nu yàlla ne ëllëg aljanna dinaa leen defal ay kër yoo xam ne war nañ ko gëm te jaww ji feesut de fi yàlla def étoile yi feesut de wa kullun fii falakin yasbahun benn bu nekk mu ngi ci espace am di feeyi am na yoo xam ne du ñu fekki seen i morom mukk te benn bu nekk yàlla subhanahu wa taala moo ko tàggat fi mu nekk du fa bougé su fa bougé woon rek musibaam bu yàlla mbëkkante woon ñaar te buñ demee ba àdduna di waaj a jeex yowmal xiyaam di taxaw yàlla dina mbëkkante ñaari étoile muy jant bi ak weer wi muy suratul xiyaama jàngeen ko wa jumi as samsu wal qamar su boobaa yowmal xiyaam day am kon instant bi bu explosé woon luy am waaw bis bu yàlla xëyee bis bu ñu xëyee kalla iza balagati taraqi wa xiila man raaq wa zanna annahu alfiraq waltafati saaqu bisaaq ila rabbika yawma idin masaaq gaa yi laaj yàlla yowmal xiyaam kañ la mu ne iza baraqa albasar wa xasafa alqamar wa jumi assamsu wal qamar doomu aadama affaire da koy dépassé yaqulu insaanu yawma idin inna almasar wooy fuñ jëm wooy fan mooy rawekaay bi yàlla mu ne kalla déedéet tey rawukaay amul ila rabbika yawma izinil mustaqar tey daal rawukaay bi sa borom kese la raw kenn du raw seen borom rek yàlla ne na keroog yu nabbalu insaan bima qaddama wa axar keroog doomu aadama dinañ ko wax li ci kanam ak li ci ginnaawam lépp lu mu defoon dinañ ko ko teewal pour doomu aadama mooy yàlla mu ne ah balil insaanu ala nafsi basira bu ñu sonal waaye xam nga sa bopp ah xam nga sa bopp bu ñu sonal bu fi indi benn débat affaire bi leer na ci yow coolee bari rek waaye xam nga sa bopp affaire lu ndaw de lu rëy ci yàlla la waaye nag comme ñun xamuñu mu tax muy tuuti ci ñun muy tuuti ci ñun parce que ñun xamuñu suñu borom ne subhanahu wa taala xaalidina fi abadan mu ne wa'da allahi haqqan wallahi boo waxoon wa'da allahi rek doy na yàllaa leen ko dig waaye pour mu wax leen li am mu ne haqqan yàllaa leen ko dig te dëgg la dafa mel ne nit ñi dañuy am ay déng-déng mu ne waman asdaqu min allahi xiilan ndax gis ngeen ko gën a dëggu yàllay wax dangeen ko gis da ngeen gis ci àddina bi koo xam ne moo gën a dëggu yàlla dangeen ko gis waaw waaw wa man asdaqu waada allahi xaqan yàlla leen dig te yàlla nee na li ma leen dig dëgg la wallahi alazim wallahi lu ñu yàlla dig dëgg la wallahi lu ñu yàlla dig dëgg la wallahi yàlla nu dig te li mu ñu dig dëgg la laysa hunaka man huwa amu fi kenn koo xamante ne waadan wala qawlan min allah ay digéem ak ay waxam gën naa dëggu yàlla jalla jalaaluhu yàlla bi mu ne dinaa leen bind bind naa leen naa leen def ay mbindeef def nañu ko naa leen dundal dundal nañu naa leen rey danañu rey naa leen dekkil danañu dekkil a leen dekkilee dinaa leen taxawal ci sama kanam naa leen fay ku nekk la nga liggéeyoon loolu jarul déngi déngi waaw yàlla bi mu ne da ngeen dee ba léegi ndax gis ngeen ku deewut pourtant normalement waroon na normal de nit ñi ci àddina bi ñaata lañ ah ñaata ngeen jàng lu ñu leen wax ñaata ngeen jàng ñu ne ñu ne dañuy def dañuy def lan dañuy natt dañuy wàññi yenn saa nga gis ay nit ñëw di wàññi kër gi waaw neen dañuy wàññi àddina bi ñaata la ñaata lañ instant yi sept milliards ah moo nekk ci àdduna bi ak ñi bañ a bindu am na ñu bañ a bindu de suñu kër yi rek da ngay dugg ne ah ñaata ne def rek nga dégg ñu naan kuf tuf xam juróom lañ fekk téeméer ci kër gi ah gis nga mu wax kër yi rek da ngay dugg kër yi ñaata la ma dégg maire yi maire yi na la ñii yàlla na ñu dee rek ñoo naa wax suñu kër ñaata la ñuy dee waaw yooyu gars yi sax buñ ñe dañ naan ñaata bant maam xalima maam yàllaa fi nekk pour pour jéem laa kii quoi ndax nee nañ dañ lay catu ñaata bant xalima maam yàlla ñoo fi yeewu loolu lañ koy waxee pour nga jéem a xaw a si sax pour jox leen waaye bu ñëwee ñu la ñaata nit nekk ci kër gi waaye yow ñaata nit nekk ci kër gi mooy waxi lan waaw loolu ndeysaan moo tax ñuy def sondage dañuy am problème xam ngeen ne Sénégal yi am na kër yu bëri nit ñi bindu leen 30 fa nekk ñu wax la ñu wax la deux di deux personnes fi nekk ak ñi bañ a bindu lañ ko ci boole xoolal 30 milliards yooyu de personnes mosoo cee dégg ñu ne kii moom yàlla da koo fàtte mooy àddina bi commencé ba léegi deewul kan la pourtant nit dina juddoo ci kër màgge ci kër gi nekk ci kër gi ya añ jot wala reer wala nekk ñu fàtte ko wala sédde la jot ñuy joxe joxuñu ko wala d'accord ngeen imagine àddina bi mu commencé ba léegi kenn mosu ñoo gis ñu ne kii da yàlla da koo fàtte moom di dudee bi àddina bi commencé ba léegi nag ñu ne kii kii de fii la ko ñëpp fekk xam nga nuux dafa guddoon fan ah nuux ñaataat la amoon déedéet nu amul loolu de loolu mooy avant yàlla di ko yónni loolu mooy avant yàlla di ko yónni li li yàlla wax ci alquran xamsiina aman alfa sanatin illa xamsiina aman loolu mooy li mu ko yónni loolu mooy daawa bi daawa bi loolu la ci def daawa bi junni at yu manqué juróom fukk mooy daawa bi nu bi mu demee gars yi dañ doon wax kii du dee daal ko moo tax borom kër guy dee da ngay woo say doom ne moytul ma góor gii dañ ko doon donnante jàngu leen suratu Nuux lan lañ doon wax nu moytu leen ko kii ñun fii lañ ko fekk suñuy maam dee nañ bàyyi ko fi gis nga ñun ngi nii di dee di ko fi bàyyi bu leen ko topp de gade ñu ne nu yàlla da koo fàtte déedéet parce que yàlla moo ko mayoon mu gudd fan at yu toll noonu yàlla moo guddal fanam aadama rek aadama bi mu wàccee jóge ka osmaan ñëw ci suuf toog na ñetti téeméeri at sigiwul aadama bi mu wàccee jóge asamaan ñëw ci suuf ñetti téeméeri at xoolul kaw siggiwul nii rek la def di sëgg ndax rus yàlla tabaraka wa taala benn bàkkaar bi mu def makasa salaasa mi asana lam yarfa raasahu ila sama ñaata at la am waaw kon yàlla du fàtte yàlla du juum yàlla du jaawale yàlla du dig ba pare naan maa waxoon waxeen loolu amul ci yàlla moo tax mu ne waadallah xaqan yàllaa ko digi te dëggal pour nit ñi bañ a am déngi-déngi mu ne waman asdaqu min allahi qiila kan ngeen gis mu gën a dëggu yàlla ay wax kenn du ci teg bët jant bi du tiim koo xam ne yaa gën a dëggu yàlla loolu du am lu tax ndax yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala yàlla mooy boroom kun fa yakun loolu naan na am mu am kooku mooy yàlla yàlla mooy boroom na am mu am keneen kuñ jël jëfu yàlla jooñ nag jox la ko dañ lay nax rek ndax bu fekkoon ne yaay borom naam mu am doo dee da ngay dégg ñu ne diw mooy borom naam mu am anamu ah mu bi dee ñëw mënoon wax deewu ma kon kay dañ koy nax ah waaw borom jaam yi diw mooy borom jaam yi xam nga kooku dañ lay nax ñu ne yaay borom jaam yi pare nga dee bàyyi fi jaam yi dëgg dëgg kon de lor nga ñu lor nanu de kii ne mooy suñu borom pare mu dee bàyyi ñu fi lor nanu ko doon toog fi kay di ñu orienté di ñu jubanti waaye xam nga ne yooyu yooyu nit ñi nga xam ne xamuñu dara dara dara dara dara amuñu benn pas-pas ñooñ ñooy yegg foofu ñooñ ñooy dem di jël nit di ko yóbbu ci yàlla di jël mbindeef di ko yóbbu ci martaba daraja yoo xam ne yàlla rek rek rek moom moom loolu ñu xamul dara ñooy def loolu waaye ku xam te balaa ngeen di xam ne sax ñii sax duñ dara wallahi azim ngeen di woon cëpp Madinatu Munawwar ngeen gis yonent bi jumaam ji ngeen gis soorari jumaa yi ngeen dugg ci biir gis lamp yi nekk ci jumaa ji ngeen dugg fi mu doon de ngeen gis barrière or yeeg ngeen gis bagage yi te du yàlla te kooku du yàlla am mbindeef la ci yàlla mais boo duggee fa ba nga gis daraja ji ko yàlla may kon doo ñëwaat fii sax gars yi nee na yonent yàlla Moussa bi yàlla waxee ak moom ba pare su déggee nit wax day wàccu suñ ko nee la la mu ne sama xelay tey waaw soo demee fee tamit ba ñëwaat li mbokk bi doon wax léegi nee na bi ma ñëwee ba léegi damaa joomi gisagoo dara boo demee fee ba ñëwaat dara dootu la saf fii dara dootu la saf dootu dootu la xeeñ neex ci ay jaamu yàlla ndax da nga fi dul gis sax jaamu yàlla saf saf loolu mooy wax bi fële nag boo fa duggee looy jaay di nga fekk lu ko ëppale looy jaay na am kenn ku wax benn wax leen benn ci jaamu yàlla yi sarax di saraxe nii saraxe kay loolu kay mooy mooy mooy li mujj da ngay gis koo xam ne sëñ bi ay remarque la gaare ndox ak lekk di joxe te kenn du xam kan la te mu ngi ci biir soli bologam bu weex di joxe mu ngi ci biir di servir wala bu fekkee jaamu yàlla ngay jaay da ngay jaay julli nga gis koo xam ne sax waaye day sujjóot liñ fi toog lépp di tafsir mu ngi sujjóot bu dee da ngay jaay sikkim di nga gis ku ñëw ba ci óomam daal di koy lem toog bu dee kaala ngay jaay kaala allahu akbar bu dee alxuraan looy jaay foofu da ngay gis ko la ko bële bu dee teele yow da ngay ñëw fekk jumaa ji fees del nga naan man fan la waaw man une heure laa yow bu ma yaakaaroon ne une heure nga ni xaar ba suba ma ñëw minuit nga ñëw fekk jumaa ji feesaat nga ni xaar ma ñëw 11 heures xanaa da nga naan su ma jullee pare bu ma dem naa toog ba pare te nit ñaa ngi toog kon anamu loolay wax ci foofu lépp dañ koy njëkkante te nit ñi dañ koy def ñu ngi sawar ñu ngi daw ñu ngi ut yàlla ñu ngi ut tiyaaba allahu akbar moo tax li ñu yàlla dig mooy dëgg mbokk yi li ñu yàlla wax mooy dëgg ku bëgg a dund nag dund boo xamante ne dafa am jàmm mooy fexeel nga dem ci yàlla tabaaraka wa taala nga bañ a xool nit ñi liñ nekkee fii lii gis nga lii nii ku ci bàyyi xel doo dem de ndax ñoom dañu ne duñ dem duñ bàyyi kenn dem li ñu gëm mooy lu yomb lu neex ay rëjëx rëjëx lañ gëm ay tëgg ay fecc ay xumb sara xoolee ay paccal ay xóotal ak ay jullit yu tegaloog ay jullit yuy kenn xamut loolu lañ gëm te loolu nag amul du diine diine amul fo diine amul folklore benn waaye nee na ma keroog dem naa fa ba ñëw gisuma benn kër këru diw këru diw këru diw këru diw mu ne man yaakaaroon na bu wàccee damay gis baas yi kër Aboubacar wala ma gis ñu ne ñii ñooy waa kër Umar waa kër Ousmane nga ne le fala tabale yi gën a xumbe waa kër Ali ya nga ne mu ne gisuma dara man daal li ma gis daal mooy ay jaamu yàlla ma ne ko kër amul foofu kër kër kër kër diw amul Makka amul Medina foofu daal kër jullit moo fa am jullit ñëpp a yem tout le monde kenn moo fa am place mooy imam feneen foo la julli fekk taxawal amul kenn ku lay wax jugal fii fii waroo fi taxaw fii di place kii ah amu foofu puus leen ne wala sées bi diw moo ji toog xanaa ñiy jàngale saa yoo duggee ci kaaba gi wala Médine nga gis ngandum sées ah borom xam-xam yee ciy toog nag di jàngale boo amoon xam-xam rek nga ñëw toog fa ñoom it moomuñu ko de ku am xam-xam rek ñëw toog jàngale boo demee keneen ñëw toog yaa rek moo fa nekk diine daal mooy dëgg mooy li ñu yàlla wax mbokk yi li mooy dar su tey ñoo ngi ñaan yàlla mu jéggal ñu njuum tey asalaamu aleykum wa rahmatullah bu amee ay question insha allah